rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi dil gufraani wal karami ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ci weeru sell wu tedd wi di weeru shahru ramadan di weer woo xam ni weer la woo xam ni saa yu ñëwee rekk jullit bi dana gën a tàggataat jëmmam ci yu baree bari yoo xam ni jëmmam nungu ko woon muy di not bakkanam ba lu mu bëgg a def diggam ak boroomam mu yomb ko lool ndax boo seetloo ñi woor ba ki nga xam ni xiif na ba jant so miskin bi faqir bi ak ki nga xam ni moo woomal dana ci jàngate lu baree bari xam ni ki daa dañ dañ di ñëw ci moom di ko ñaan ak di wut lu mu jox njabootam daa yëg ab xiif te booba nekkuñ ci weeru koor ñi ngi ci weeru koor tey moom way am ji day dana xam ni xiif day metti na lool jàngat yooyu itam am na ci biir weeru koor ki nga xam ni moo amoon itam dana dellu gën a mën a dimbaliwaat gën a mën a jàppalewaat ki nga xam ni moo ko tane ndax dana ci xame ni xiif kay metti na nga xam ni budul woon lu weeru koor am mën na koy bëñ di yëg ndax yàlla dafa binde doomu aadama noo xamee ni li bëgg ay bëgg-bëggam li fekk mi koy am rek mën naa bañ jàpp ni am na ñoo xam ni amuñu ko te loolu lu ama ama am la muy weer woo xam ni itam weeru njëggal la muy weer woo xam ni itam weeru yërmande la muy weer woo xam ni itam weer la woo xam ni saa yu duggee rek jullit ñi gën a gën a fasuwaat gën a gën a gën a yëgaat yàlla geneen yëg gu bokkut ak yëg giñ ko daa yëg nga xam ni dangay gis sax ñu baree bari yu yuñ daa def ci mbir yoo xam ni mbir yi yu wayade wayadi la dañuy gën a am ak farlu gën am ak sàmmu ni ma ko waxee woon léegi muy weer woo xam ni itam dangay ñàkk lekk ñàkk naan ba jant so fajar ba jant so loolu nag taxul ñuy wax koor loolu lu mat a mat a bàyyi xel la moo tax koor moom doomu aadama bi ba daana muy woor yaakaar ni mi ngi am koor fekk daa ànd ak mbooloo mi ab xiif jàpp ko rek ndax koor moom dafa tënkuwut ci ñàkk lekk dong tënkuwut yitam ci ñàkk naan dong tënkuwut yitam ci xiifal sa bopp dong doomu aadama bi bu wooree dafa war a fexe juróom-ñaari cëram yépp woor loolu mooy ak koor da ngay fexe ba ni nga woore sa juróom-ñaari cër yépp woore noonu loolu itam da ciy am solo ndax téye sab xool ci lépp loo xam ni lu xaraam la nga te ci sa bët am dik am sik ani nadari lil xaraami wal mashi wa samai maal kalaami téye sa bët ci lépp loo xam ni lu xaraam la te itam sa tànk dox jëm fépp foo xam ni lu xaraam la wala luñ lay tere la wala luñ ñu sib la ak déglu loo xam ni sa yoon nekku ca ba boolewuñ la ca ak itam ànd ak di wax wax joo xam ni dëppawut ak ngërëmal yàlla bokk na ci itam ak bépp xalaat boo xam ni xalaat bu suufe la te doomu aadama bi bu ko xalaatee rek mu mën ko yokk ay mbon mbon bokk na ci itam bokk ngay téye say cër ak di def lépp loo xam ni yaakaar nga ni ngërëmal yàlla ma nga ca ginnaaw bu la yàlla digalee lim la digal lu mel ni lay guddi yi nga xam ni sunna la waaye ñu baree bari bëgg nañ ko te bëgg googu mën nay dem di leen xirtal ba ëllëg ñu koy am mébét di ko def lu dul weeru koor te boobaa du leen yokk lu dul tawféex ak ngëneel lu rëy rëy fa seen borom te itam ñàkk lekk diggante suba ba jant soo xiifal sa biir du ceeginu bu xëdd jotee da ngaa war a tiim rek lekk ba sa biir fees déedéet dangay lekk loo xam ni dana mën a dëgëral sa ndigg muy doomu aadama bi wërta lekk li fa xiifut te bu xiifee itam bu demee bay lekk wërta lekk ba rek daa war a lekk lu mën a faj lorom bi ma mu zulba loo xam ni dana mën a dëgëral ndiggam ba mën a dox ay itteem ndax kat lekk ba regg ci la bopp kuma ci la bopp waru yëpp ci la commencé képp koo xam ni itam daanaka daa lekk-lekk ba fees ab biiram fees kooku daanaka du soree ki bayima ndax fa innahu maal bahimati stawa ida fatahu xayrun kathirun fatawa da ngay gis ni bayima yi ñoom ñooy ñoo xam ni bu ñu xiifee lekk buñ maree naan buñ gëmentoo nelaw doomu aadama nag du ma kon moom loolu du waru garam am na ñoo xam ni loolu rek lañ jàppe sunu àddina te loolu màndargam euh, bàyyi ma la dangay gis sax ñenn ñi bu xëdd jotee ñuy xëdd di jëf jëfinu euh, jur guy lekk lu ne luñ tiim lu ne fexe ba lekk ci ba yëg ni lekk nañ duñ ko def ci xëdd dañuy dem ba waxtu dog sax di ko def wa baaduhum yakulu akla al baqari waqta futuurihi wa waqtu shuhur Euh, da gis ñoo xam ni waxta saxari waxtal fuqóor yi dañuy jàpp ni ñoom dañoo war a lekk-lekk ba seen biir fees dell dell loolu nag sa biir bu feesee xataa yakunu batmahu batmahu saqila jiddan fa saara qalbahu nit ki bu lekkee ba biiram fees dis gann day mujj xolam soxla jëm ci leneen lu bokkut ak sunu borom subhanahu wa ndax yàlla ni ko ab jaam mën a amee mooy not sa bakkan nit ki bu notul bakkanam am yàlla mën na koo jafe lool te sax euh, gëwma ni mën naa am nga xam ni bu notee bakkanam di tudd tudd bu baax a baax yàlla di di muslu fu mu toll ci waru ci waru moo xam muy woor ni doomu aadama mën nay woor yaakaar ni mi ngi defal yàlla lu rëy rëy loolu rëy na ci doomu aadama bi waaye yàlla lenn rëyut fa moom lenn rëyut fa moom bokk na ci itam euh, weeru koor bu ñëwee euh, doomu aadama yi daanaka dinañ fàttaliku juróom yoo xam ni alayhi salaatu wasalaam danaan doomu aadama yi dañ koo fàtte te weeru koor bu ñëwee lenn ci doomu aadama yi du mën a ñëpp waaye lenn ci doomu aadama yi danañ ko fàttaliku muy doomu aadama yi danañ fàttaliku juróom yoo xam ni mel na ni fàtte woon nañ ko wala bu ñu ko fàttewutoon itam yitteelu leen muy ak bëgg àdduna dana wàññi ci ñoom ak jublu alaaxira dana fés ci ñoom ak bëgg wërsëg dana wàññi ci ñoom di xalaat régler ëllëg bu ëllëgee dana yokk ci ñoom bëgg gu ñuy bëggante seen biir ni ko yàlla bëggee dana ñëw dana feeñ ci ñoom di topp mbindeef ci lu yàlla bañ dana wàññi ci ñoom moo tax dangay gis lenn ci doomu aadama yi weeru koor yu ñëwee ñuy créer yeneen yeneen création yoo xam ni day mel ni diine te du diine ndax lu luñ ëmbut diine rek mu xaw a nuru diine rek doomu aadama yi duñ sawar ci dem ci loolee dangay gis loolu donc weeru koor bu ñëwee nit ñi lu ñuy woote rek faaw ñu càmm faaw ñu laxas ca diine ngir nit ñi amatuñ jot ndax seen seen xol ak seen bakkan jamono jooju jamono jooju daa natu te doomu aadama saa yu defee lu lu yàlla gërëmul rek bakkanam la la la bàyyi noonu ñàkk ko nat te itam bu ñëwee dañuy fàtte lu baree bari yitte àddina di dëgmal ci jamono ju ne seen borom te saa yu ñëwee dañuy féetewoo dañuy féetewoo euh, tuub di fàttaliku bu baax a baax seen mooy yàlla gi di ko jéggalu seen borom subhanahu wa taala muy lu amaam solo loo xam ni euh, ci biir weeru koor doomu aadama yi yàlla mi ngi leen ciy dimbali bu baax a baax te yitteel na leen lool weeru koor ci lañ wàcce alquran ni ko alquran waxe ni chahru ramadan alladi unzila fihi alquran bu bokk ci ngënee li weeru koor weeru koor itam ci lañ wàcce guddig laylatul qadri muy guddi goo xam ni gën na junniy weer muy guddi gu amaam solo mi ngi ci biiru weeru koor weeru ci la ñuy goreel lu baree bare bari ci jullit ci sawara goreel leen ci sawara jëme leen àjjana nga xam ni loolu lépp ci biir weeru koor lay doon weeru koor yitam suñ boroom dana jéggal way woor ñi guddi guddi weeru koor wu jot suñ boroom day jéggal ñi nga xam ni dañuy woor ndax ki woor defoon ay njumte suñ boroom mën naa nampaat ci xolam xam ni xëy na weeru koor wee ko jàpp ba mu xamaat ni yàlla rek ay yàlla ndax doomu aadama tolof tolof nii bu ko amee wala mu sonn nii da koy jàngal lu baree baree bari dañ naan bala nga xam àddina sax li ca gën mooy ay nattu dal la koo xam ni itam nag yàlla dogal na ah, ay nattu dal ko ci biir weeru koor ak lu dul biir weeru koor kom dugg nañ ci mbir moomu rek ñu indi ci lu am am solo loo xam ni dana mën a doy yóbbal mboolem jullit yépp ndax koo xam ni mi ngi ci tartari àddina moo xam mu ne ci weeru koor sonn lool te mënut am lu mu njabootam moo xam mu ne ci leneen lu bokkut ak njabootam te sonn lool ca mbir moomee moo xam caabi féete ko ginnaaw day faxa saxal di jàng ñaan gii téeméeri yoon juróomi waxtu julli gu ne muy jullik suba di jullik tisbaar di jullik takkusaan di jullik timis di jullik gee waxtu wu ne téeméeri yoon la koy def danaan allahumma indi asaluka al afwa wal aafiyati wal muaafati fi dunia wal axira yow sama borom day maa ngi lay ñaan njéggal te nga jàmmal ma te nga jàmmal ma ci ñaari kër yii muy àddina te nga jàmmal ma ci sa kër gee ba tey muy këru alaxira ñaari kër yëpp ay këram la rawatina doomu aadama bu koy ñaan ci biiru weeru koor suñ borom da koy wuyu ndax weer la woo xam ni dañuy jéng seytaane doomu aadama bi néewaa na muy def dara di ko di ko di ko fësal sax te yàlla taxul weer la woo xam ni itam dañuy tëj bunti sawara weeru koor xëy na lu mel ni dépasse ak yooyu të ko wala lu mu joxuk njabootam aaya bii di salaamun qawlan min rabbin rahimin ginnaaw bu defee laa xawla wala quwata illa billahi aliyil azim juróom-ñaar fukki yoon teg ci aaya bi téeméeri yoon salaamun qawlan min rabbin rahimin suñ borom dana ko wërsëgale lu mu mën a joxuk njabootam ndax foofu dem nga ba sës xam ni yàlla rek yàlla amoo pexe amoo man-man amoo kàttan gu la mën a may amoo pexe gu la mën a may waaye gëm nga ni yàlla mooy ki la mën a may nga wékk ko say loxo wékk ko say mbir ngir mu may la bokk na ci itam njariñ loo xam ni danaa ko indi ci doomu aadama yu baree baree bari ñu bëgg yëkkatiku akuk nangu bëgg ñoo xam ni fu ñu toll dañ leen di yëkkati ba pare amuk nangu ci ñoom doomu adama bi day faral di def bismillahi rahmaani rahim juróom fukki yoon xasbunallahu wa nihmal wakilu juróom fukki yoon wa alqaytu mahabbatan minni juróom fukki yoon allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad juróom fukki yoon ak juróom bis bu ne doomu aadama bi di ko saxal di ko def ci biir weeru koor bu weer wi jàllee dana yëg yëkkati ko yàlla yëkkati ci biir ay nawleem dana yëg nungul gu ko doomu aadama yi nungul ci biir ay nawleem te loolu doomu adama bi waxtu wum ko tàmbalee ci biir weeru koor rek baax na te yàlla dana ko ci defal ngëneel wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin bi alihi wa sahbihi wa xadimihi amin